Ah, léegi léegi ñu dem RFM euh, fekki Baba Babacar Fall ak ganam tay euh, mi ngi dalal Thérèse Faye JT agence nationale de la petite enfance ak Calabas des tout petits euh, case des tout petits ngeen bal ma ci rendez-vous 8 heures inshallah yow yaay njiital agence nationale de la case des tout-petits et de la petite enfance foog naa noonu la. noonu la wér gi yaram lañ bëgg a waxtaanee ndax euh, seetlu gi mooy bi coronavirus gi euh, duggee ci réew meeg léegi ak ni mu tollu kayek euh, ñi ci ñak seen bakkan tax na ñu bëri di daw l'hôpital waye ci ñi nga xamni ñoo ci gëna a nara loolu mooy tout tank yi nga xamni dañoo wara faju ji mbaa ñu ñàkku ji seeni waajur rawatina yaay yi yobbu leen l'hôpital te mën na am lu mu jur lu lu garaaw ci euh, wér-gu-yaramu tànk yi est que gëstu ngeen ko est que nas ngeen ci dara. Euh, jërëjëf euh, Babacar dama lay nuyu di nuyu Georges di nuyu ñu ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew di wax ne ñu ngi ñaan yàlla suñu borom rek mu dimbalewaat àdduna yëpp pour que mbas bi jóge fi. comme ni nga ko waxee dafa am seetlu yoo xam ne def nañ ko jamono yi mu jëm ci wàllu prise en charge. petite enfance euh, ñuy wax nek prise en charge buñ ko waxé dafa am aspect bo xamantene dafa jëm ci ak ci aussi ñu gëna wax parce que dafa am euh, question yi ñuy nouvelle vulnérabilité yo xamantene euh fièvre bi motax mu lu mel ni euh, calendrier vaccination xale yi est-ce que ñu ngi koy respecter normal lu mel ni également euh, visite prénatale yi est-ce que jigéen ñi ñu ngi commencer wala ñu ngi continuer di dem hôpital pour xool seen bopp ñu seetlu ne ko aussi xëy na résultat étude yi génnagul mais li nga xam ne moom mooy accouchement à domicile yi aussi nit ñi ñu ngi koy commencer te loolu yëpp dafa nekk ay question yoo xam ne suñ ko waxee rek nga war a wasin demoo euh, l'hôpital nga toog ci kër ga wasin ak euh, risques yi ci am. ak risques yi ci am loolu nag yaakaar naa ne que waa kër docteur dinañ ci xuusaat bu baax a baax mais bokk na ci li ñuy naan rek euh, li nga xam ne moom mooy mbas bi dafa am question yoo xamante ne def ko def def ko dugalaale ba tax na. Euh, ñun ci walu suñu liggéey muy agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits ak écosystème bi nga xamné mo ci ciy liggéey parce que buñ waxé écosystème mooy ñi nga xamné dañuy intervenir ci walu nutrition ñi ci walu éducation ñi ci walu santé ñi ci yeneen fan lépp autour de la petite enfance mu nekk xayma yo xamné nar nañ ko def pour xool ak waa Kër Docteur aussi ñoom nan lañ ci mën a taxawee pour xool nan la ñuy mën a def ba am ci ay solution mais lu ñu gis daal mooy ne que euh, visite yi nga xam ne moy respect calendrier moy vaccination xalé yi té loolu du Sénégal kessé parce que bo seetloo même en Europe keroog rek ma ngi lire benn article parce que bo seetloo fofu tamit ak période de confinement bi ak mesure yi nga xam mom la état yi jëloon nit ñi mënutuñ won respecter yoyu non donc loolu nak nekk question bo xamante je pense que baax na yaay yi ak parents yi ak waajur yi aussi bay ci xel xam ne docteur mom dañ ko wara continuer di fréquenter pour mëna continuer la prise en charge

ndax duñ koy defee su euh, seulement ci kër yi yéen am ngeen ci li nga xamante yéen a ngi koy def ngeen topp leen ñi nga xamante ne waroon nañ am ay rendez-vous wala am li ñu war def ngir ñu dem defi ka xam nga euh, question bi euh, mën naa ci gën a xuus boo seetloo ministère de la santé bu daan def ay vaccination pour mu toucher la cible maximum day dem ci structure yi ci maternelle yi privé comme public. yow Georges des fois da ngay gis sa dom bu wàccee daf lay andi benn bout de papier bo xam école bi day laaj ndax joxe nga autorisation pour sa dom ñu ñàkk ko Légui nak bu fekente ni diganté bi nga xam gouvernement bi jël na décision pour que école yi tëj ko école yi tëj. donc xam nga activité yo nga xam acteur de la santé mom lañ doon def ci école yi pratiquement amul donc motax euh suivi bi euh, du du du lo xam ne na. parce que je pense que waxtaan la rek parce que parents yi ñoom xam nañ li baax ci seen doom mais dafa am situation bii ma expliqué léegi le fait ko école yi tëj le fait ko aussi feebar bi am na ci dëkk bi le fait ko aussi am na yeneen caractéristique wala yeneen élément yu am yu tax xëy na loolu mën a nekk ay points yoo xamante ne mun nañ ko soñ mais ba tey man gëm naa ne que euh, gouvernement bi dina ci jël ay matuwaay dina ci jël ay matuwaay ci fànn yëpp parce que ñun ñii. nga xamante ni ñun ñooy quasi tout petit. mu ngi bëgg a yéex de. non du question yéex parce que tamit euh, li nga xam ne moom moom la ñu war a njëkk a def te ñu ngi ci. mooy xool nu ñuy gën a accentuer sensibilisation bi ak communication bi pour nit ñi xam ne que dañoo war di continuer di jàppale xale yi di teg éléments yi nga xam ne yëpp moo leen mën a dimbale pour question boobu nga xamante ne c'est c'est un point fondamental ci protection xale yi pour ñu kii pour pour pour ñu satisfaire ko euh, leneen li nga xam ne aussi. bëgg naa ko expliquer su ma ko waxee léegi rek mooy kër doctor moom man dama leen a euh, wóolu. ci fànn boobu ba nga xam ne même bu fekkente ne nu ñu daan laalee cible bi peut-être ak ni école tëj je sais que dinañ trouver yeneen moyen ensemble ak yeneen acteur yi pour mën a xool nu ñuy def ba li nga xamante ne moom mooy question boobu ñu kii ko. leneen li tamit mooy xam nañ ne les parents naturellement même loolu su amatul aussi dinañu jéem a trouver yeneen solution xam naa bu ñu xamee li nga xamante ne moom moo ci bu nekk yépp pour ñu mën a taxawu. accompagner xale yi ñàkk leen mais aussi ñu mën a taxaw jox leen lépp loo xamante ne war na ci seen dund. sensibilisation waaw waaye boo leen yemee ci gëstu jamono ji wala ngeen di jéem di wut ay solution est-ce que euh, mbir mi du gën a yéex gën a indi loraange. non du du lu ñuy naan mbir mi day gën a yéex wala day indi ay loraange parce que je ne dis xale yi ñakkootuñu ñu ngi ñakku mais li ma wax mooy ne ko li ma la wax mooy ne que dafa am seetlu boo xamante ne def nañu ko c'est-à-dire xale yi nga xam ne dañ doon nekk ci suñu structure yi te programme de vaccination yi ministère de la santé daan am yëpp doon jaar ci école maternelle yi pour mun a cibler les les zéro cinq ans nii école yi tëj Faut naa que pour ñu toucher cible bob légui day il faut ñu utiliser yeneen canal motax tax ma la tey amul dara lo xamantene dañuy nane des graves mais baxna ñu alerter pour wajur yi xam que même bu fekkente ne xale yaa ngi ci biir kër yi nañuy jël carnet de vaccination xalé di xol rendez-vous yi di jël disposition pour dem hôpital pour xalé ñu ñàkk leen. Hmm. donc mais gouvernement bi mom tay la gëna taxaw pour toutes les questions liées à la protection euh, des enfants des mères ak lépp ñu ñu ñu satisfaire ko parce que loolu dafa am solo et je pense que président de la République chaque fois nous mu koy waxee du plan Sénégal émergent nous nan la ñuy mën des ressources humaines de qualité dans ce pays. Ni euh, ngañ ni gouvernement bi géré crise sanitaire le coronavirus bi nak lu ci sa sa xalaat ne euh, ay manqué manqué ki ci lol l'élection léeg sax ñu tudd yu luubal séddaleem nangam ak nangam lu ci sa euh, xalaat yow. Euh, gis nga man gisuma ci ben yon cuune euh kuma déglu nak xëy mën nga japp ne que parce que dama bok ci nguur gi motax may défendre mais parce que Babacar euh, bo défé une étude bo défé une étude comparative. un peu partout dans le pays dans dans le monde ce qui se passe mën nañ wax ne que fébar bi. Euh, kenn warta mën a taxaw di nan diw da nga laaj ci li da nga laaj ci la président de la république mesures yu mu jël du début jusqu'ici ce sont des mesures salutaires mën ko wax tek ci ay firnde yu bëree bëri nañ la accompagner tous les secteurs de la vie muy côté tourisme muy côté économie muy côté social euh, euh, électricité subvention eau ak lenen ak lenen ba ci effort yi nga xamné président def na ko pour sax école bi ubbi ñu accompagner xale yi nga xam ne dañuy def examen loolu dafa am solo tey feebar bi am ci biir réew mi ñuy ñaan yàlla mu jóge fi nañu ñaan lay xew feneen yàlla bu mu xew Sénégal mun naa lim yeneen dëkk yoo xam ne ñoo ëpp fuuf doole Sénégal te xam nañ li fay xew ci nombre de dese ci na hôpitaux yi euh, euh, dépassé sax fièvre bi té kenn du wax ni que ñooñu amuñu logistique bi amuñu matériel yi. amuñu moyens yi day fekk xayma chiffre yi ñu joxe doon dëgg itam. Euh, on espère. Hein. ah lolu <laughs> sa jugement personnel la mais man lima japp ah. non non sa jugement personnel la man j'ai confiance en tout cas à li nga xamante ne la acteurs yi au niveau de la santé du joxe mais li ma bëgg a ci loolu mooy ne que il faut savoir que tay bu amee mbir moo xam ne dafa am ci biir réew muy feebar on doit dépasser les partis politiques la politique oui mais dafa am fu mu yem lii nga xamante ne moom mooy mbas mi am fii tey gis nga biir réew muy Sénégal ñun ñëpp ñu bokk ko ku ci nekk balaa ngaa xalaat yeneen projet dangaa am jàmm am sécurité am wér yaram te loolu état moo la jox président de la république ci la nit ñi seen xalaat muy politique ak nit ñi seen xalaat aussi sa xalaat boo joxe sa xalaat nga ko ci sa vous avez dit tout à l'heure que par rapport à ay gestion ay nu ñuy defee man en tant que maire nekk ci monde rural bi mën naa pas mal. d'exemple yoo xamante ne nguur gi bu ko defutoon ren mën naa wax ne que dina métti trop ci li nga xam ne moom mooy monde rural bi aide alimentaire bi am na ñu koy ŋàññi am na ñu koy xeeb mais tey yow Georges Diatia Diop sorianto ne bu nawet di dugg xam nga li kaw justement fooy fooy tek li nga xamantene mo doon quoi ki nga xamantene ne nemeeku nañu nemeeku nañ ko euh, surtout ci euh, aide alimentaire bobé yan quoi nga fa gis ci ciblage bi registre national unique bi nga xamantene ne euh, laalul ñep ñu waron lal ba tax sax ko ci mujjanteel ga njiitu réew mi lan la mujjee wax daañu daañu jox ñeneen ña aide alimentaire mais ciblage bi mais ciblage bi il faut saluer ouverture bi ci ministère de l'équité territoriale def parce que defa ne chaque collectivité territoriale ci comité de ciblage am vous faites qu'il y ci des ay imperfection ay doublon permettre de ko mu def correction à l'interne Nous, loolu fait. ça. Il faut que nga gis ne que y a eu des ménages dans un ménage il y a eu des doublons mais le comité de euh, ciblage communal a le droit de gagner des doublons pour remplacer les ak je pense que à ce niveau amul problème parce que bu fekkoonte ne dafa newoon rek registre bi nu mu non noonu lañ koy faire. à moins que comité de ciblage bi jël décision que registre bi nu mu amee foofu non lañ koy changer mais ouverture boobu nga xamné euh, ministère bi permettre nako ñi nga xamné ñom les acteurs à la base. parce que dafa chaque collectivité territoriale ci comité de ciblage bu fekkente ne daf ci gis ay imperfection ay doublon permettre nañ ko mu def ay correction à l'interne ñun loolu lañu def Faut ñëw nga gis ne que y a eu des ménages yoo dafa am ci dans un ménage bo xam y a eu des doublons mais le comité de euh, ciblage communal amna droit génnee doublon yoy pour remplacer ko ak ñeneen je pense que à ce niveau amul problème parce que bu fekkoonte ne dafa newoon rek registre bi nu mu demee noonu lañ koy défé à moins que comité de ciblage bi jël décision que registre bi nu mu amee foofu lañ koy ministère bi permettre nako ñi nga xam ñom ñoy les acteurs à la base pour ñu retravailler loolu yépp et puis loolu dafa tax tay ñu gëna gis li nga su familial parce que tey boo jëlee par exemple une commune comme man mën joxe 2410 ménages la am mais ci 2410 ménages yooyu ñi nga xam ne loo ci nekkoon ay doublons dañ ko génne jox ko ñeneen ñoo xamante dafa nekk ay familles vulnérables. donc affaire bi euh, nañu jàpp ne rek c'est tout un écosystème du lo xamantene rek benn nit moo koy xalaat moo koy dox kilifa bi bu joxee ndigal préfet yi dañuy mobiliser wu sous-préfet yi mobiliser wu gouverneur yi mobiliser wu acteurs yi nga xamné à la base collectivité territoriale ñëpp mobilisé il faut saluer également l'engagement des maires du Sénégal fep nguur bi na ci def aussi présents permettre na nous ñu que renforcer li nga donc gestion lire euh, poste euh, ci Facebook bi ñuy une étude comparative bi nga xamné grippe espagnole bi à l'époque ak nit ñi ak nga euh, genre mën wax né que euh, effort gouvernement je ne dis pas uniquement au Sénégal mais partout dans le monde pour tek ay programme de résilience effort yoy boko comparé à ce qu'il y a eu à l'époque dans carrément les peuples sont devenus de plus en plus exigeants mais lolo c'est tout à fait normal ba aussi gouvernement a def ay je pense que nous devons ci certaines critiques encourager certes critique parce que c'est ça qui fait avancer les choses nit ki bu defee heureux nagn ko ko wax. mais aller jusqu'à quand même dire des choses qui ne répondent pas à la réalité. gouvernement bi fini lolu je pense que aussi lo xamantene dañ ko wara baye xel gouvernement bi Macky Sall ak euh, ministre mi euh, yorine wi ñu yor yor réew mi. xel tey na ci lool rapport yi fi mujjee génn di wane sàkkal pexe gi ñuy sàpp sàkkal pexe alal réew mi di salfaañee li ñuy wax procédure yoon wi wi nga war a jaar ngir dépenser alal réew mi eh, ay ndëngte yoo xam ni jéggi na ñu bëri foogoon na ni bu ngeen faloo dina wàññeeku tey la waalo gën a ay. <laughs> ba tey sa sa sa sa avis rek mais je pense que tey moom euh, li ma mën a wax mooy euh, président Macky Sall et tey engagement euh, par rapport à certains principes de bonne gouvernance de bonne gestion mais li nga surtout moom mooy nan la ñuy def ba gën a ak li nga xam ministre yi def sen déclaration de patrimoine wax lañ am te mom nangul wax li am 2012 ak 2020 sénégalais xamuñ lu Macky Sall am ak lu amul. mais mais mais côté boobu mom dama wax né ministre mom waruñu xaar sax ñu ne leen def leen sen déclaration. de mom ci bopam mom kàkku jigi. lu lu tee wax yi am. mom ponkal mi Macky Sall. Euh, kàkku jigi bi nga xamantene ne fal nañ ko en 2012 la ko ca war def nako donc tay jii ni 2019 la 2019 a tax ñuy wax. 2019 euh, man 2012 la la wax 2012 bañ ko falé bañ ko falé def déclaration de patrimoine li encore une fois. pourquoi de 2019. mais est-ce que c'est une obligation pour mu def de 2019 non non est-ce que c'est une obligation mu def 2019 la déclaration de patrimoine c'est l'entrée et la sortie. Bon, effet prestation de serment. entrée mais sortie de 2019 gat entrée. Mm. mais dama ne parce qu'il continue à être le président de la République de tous les Sénégalais donc ce li nga savez aussi c'est la ci je wax mooy le président de la République yàgg na di wax protéger wul ma Demba protégé wul ma Samba leneen li nga aussi bëggoon naa la gestion des ressources euh, financières de ce pays c'est une responsabilité individuelle parce que même avec le président Macky Sall je pense que l'État, c'est la continuité et ku ci

pour ñii continuer sen liguey et encore une fois les rapports sont déposés il est trop tôt de dire que président dafa am ñu muy suturaal wala euh, deful ni wala deful na nañu tok ba xal suite bi. 30 secondes mo ñu desee euh, li ñi lam-laamee euh, remaniement ministériel ne fi mu toll nii da ngeen bëgg a réew ak opposition bi ndax amna ay opposants yu kàmb ngir wutali pale lolu noko gissé bon xam man nak duma wax xamul très sincèrement. du wax lu ma xamul. du ma wax wax lu ma wóorul est bi des ko war a wax lu ma xamul du ma wax lu mu wóorul loolu président Macky mi nga xamante ne moo am. est-ce que yéen euh, waa APR d'accord ngeen ci. ñu mënuma wax ci turu APR parce que bi may ñëw fii secrétariat exécutif national APR ba ma bokk. ah yebaluma pour ma wax lii ak li ak lii ak lii euh, en tant que militante no gissé lola en tant que militante lepp lo xamantene vision bu président Macky Sall xalat ne non la meuna a mbir yi pour Sénégal yëpp gën ci gis bopam dama ci d'accord. lenen li nga xamné aussi mayma rek lenen li nga xamné parce que amna luma déglu euh, demb je pensais que Habib si mou koy wax man loolu bëggon na am luma ci léral touti parce que man mënuma comprendre Habib si.